pour la suite bienvenue dernière partie bi yeewu leen plus euh, la ñu ko euh, tuddee xam ngeen suñu quotidien yi euh, jeudi la ñu koy arrêté sinon vendredi yeewu leen plus da ngeen ci ànd ak oustaz Pape ji nag ñu ngi jëm ak yéen 11h ci télévision Futur Média heure bi nga xamee ni ci la ñuy àndandoo ak yaay ma ngay préparé ca ca ginnaaw wala ca kaw pour ca kanam mu ñëw ak yéen ci li nga xamee ni moo di wareef tey ji tamit moom Modou Ndoye Bane ak mami dinañu dajji paquet bu bees laataa ñu ñëw ci ñoom toggal li nga xam ni moo di euh, salade euh, piémontaise euh, mais balaa <laughs> muy togg salade piémontaise waat leen ni ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi numéro yi yaa ngi affiché wu noonu ci suuf écran bi pour fu ngeen mën ti nekk ngeen mën a dugg et puis suñu ay coup de cœur dañ ciy ñëw comme chaque lundi bijou defaral nañu sélection musicale alors Alfie tey tombé na ak ñuy célébrer journée mondiale des pâtes tu vas en parler dans quelques minutes waaye yaa ngi àndandoo ak Sophia beurre bi ci vitamines yu bëri yi ñu xool expliquer que ñun Sénégal dañoo ñeme recycler ay pot gis nga pot yi kër góor dem am na ci waañ bi am na ci douche bi potu Sofia euh, euh, ñu doon def potu ndaa ah di ko naane et tout ça. recycler a recycler de. Sénégal nag a yaa nga fa moom la sangoo léegi rotte sangu. c'est que Pape xam nga des nit ñi dañu am ay desitu jibboo. ay desitu euh, laaj. yooyu noonu nga xam ni mbóot yeeg sànqale ñi mën nañ dem da ngay jël sa benn poto suuf yaa ko jeex dugal leen ci biir yow mbóoti niñ ma soofee ah, yéen est-ce que ni may xeexee ak di xeexee ak mbóoti ay géej man de sama dàll rek laa yore dama bëri mbóot bëri mbóot bëri mbóot am na produit buy jar lay jar pap oui mais après mbooti dañuy dëgër bopp. da def da def boo leen gën a dëgër bopp chaque deux semaines da ngay traité chaque deux ah, soo ko defee si kër gi dootoo leen gis. yow kenn gisu la. dañuy dem man ba ci filmé ma ma wax. <laughs> voilà voilà c'est bien bon euh, euh, Sophia mi ñu àndal tey moom ngay toggee euh, salade parce que tu nous as da nga ñu promettre ni chaque chaque lundi il faut que ñu lekk ñu oyof quoi ñoom salade et tout ça ouais ouais donc Pape Cheikh soo gisee salade nag xam nga ñu foqale ñi léeg-léeg boo leen bu ñu déggee salade mhm. dañ naan duñ suur mhm. seen xel xam naa mooy lekk au lieu que seen comme man bët non yow moom da ngay lekk salade Pape yow tam da ngay enjoy ci salade oui mais bon après je me dis que c'est trop léger hein c'est trop léger ah. loolu leen nit ñi di wax mhm. su fekkee salade dafa am composition nutrition. maanaam su fekkee dañ leen di légume mhm. nga def euh, salade yoo xam ne dafa am légume nga jël ay protéines dolli ko ci. mais kenn waxu nag nga dem jël jënd sa kilo dibi yàpp. wala sa kilo dibi lii jaxase ko ñaari pomme de terre. salade ngay defal donc euh, comme niñ koy waxee boo jëlee ay légumes jël ñoom féculents yoo xamante mooy pomme de terre nga ñëw ci protéine muy nen yu ñu baxal. Mhm. ànd nga tuuti acidité muy cornichon mhm. nga ñëw ci jambon mu nekk mu remplacer moo ko composé euh, huile d'olive wala huile de tournesol. donc moom tamit mu andi benn élément boo xamante ne mooy composé lipides yi. def naa ci persil muy élément euh, herbe aromatique yi nga xam ne mooy ñëw ak euh, oignon vert. Mhm. donc soo gisee assemblage yi ma ñëw tamit ci tomate moom tamit mu nekk beneen légume boo xam ne day andi fraîcheur ah. donc soo gisee éléments yi ko composé muy salade piémontoise très différente bu de salade parisienne wala salade grecque donc bu ci nekk salade bu ci nekk am na njëriñam ak composition d'accord donc euh, bii comme li ma ko waxee li koy composé très facile toujours ñu ci ànd ak beurre sofia Pape Cheikh parce que moom buñ même bu demul ci euh, togg bi comme ni ma koy waxee dañ koy def sunu ay mburu ndekkee ko ah. parce que bu ñuy def sunu café dañuy jël beurre sofia diw ko ci mburu yi hmm. donc comme Pape ni ma ko ni ma ko waxee salade salade piémontoise li koy par luy particularité mooy euh, mayonnaise mooy élément de liant bi hmm. donc li ma ci jot a recycler Pape bëriwul parce que bool la woon ci suba mais ñoom di deeg ñoom Khadija dafe jeexal nañ ko Pape xanaa ma jéem a def rek ak li fi des donc nga jël sa ay pomme de terre dagg ko en maanaam dagg ko yu dagg yu sew donc jël sa tomate farci mu xaw mel ni dee non mu mel ni ay dee jël sa tomate farci moom tamit dagg ko mhm. génne pédoncule bi ci biir ak grain yi ngay gis ci biir tomate bi donc garder juste chair bi donc am naa fi tam cornichon moom tamit day dem ci biir salaat bi donc comme ni ñu koy defee dañuy jël élément yëpp dagg ko ba mu sew d'accord donc def ko ci biir mayonnaise bi suñu paree ñu découper suñu ay euh, nen yu ñu baxal. moom tam def ko def ko. pompiteer bi doo ko baxal trop ba mu mën ba mu gaaw a pàcc. ba mu pàcc mais da nga koy da nga koy baxal ba chair bi ferme. maanaam ba nga am fermeté bi nga xamante ni dina la permettre nga dagg pomme de terre bi mais du tas. sinon pàcc pàcc bi boo ko defaree noonu tem nga nga kii ko mu purée. waaw mais bon pacc pacc bi yëpp. <laughs> pàcc pàcc <laughs> xam ngeen pàcc pàcc. papa xam nga déparation bi la rek. nii ci daal yow cere bi ni ma def moo ma tax a tayal tey. papa xanaa da fër. jàlloo nga sant nag na ma ji naka jekk ni man. xalaat non on te boo lekkee lu bëri da ngay fekkee déwén donc man loolu laa jàppoon quoi. ba dañ cee ba jeex ba. gisoo ma. cere ki neppam bi. Ah. gisoo sama bëti ni ñu duggee. yow maa ngi soog xam soo ba léegi yëngatuwoo. ni ma maigriree nii diggante samedi ak tey. bu gaaw. ba cere bi dafa génnaat. ah xool ma. yow sama bëti ni mu duggee. cere bi dafa génnaat. ah bu génnul fu muy des fu muy def. <laughs> xaw naa dee barke Serigne Touba yàlla baax na yàlla baax na comme comme boo ci lekkee lu bëri da ngay fekkee déwén. <laughs> li ma ci lekk xam naa est-ce que doon nañ xam naa immortel laay nekk. lekk naa ci lekk lu raw lekk gudd fat eh, lekk ume immortel laa ci lekk. boo suurul ren déwén moo tax moo tax ma rek. ci sama bopp loolu dañ wax wala damay lekk ba du ma taaje booni damay nelaw. y a un truc qui mm-hmm. m'a qui m'a beaucoup aidé. Mm-hmm. yaa ñu ko digaloon muy bicarbonate bi di ko xóoyal. <laughs> da nga koo naan. yow bi keesu da nga koo naan kenn baadu bicarbonate bay jaxasoo cere ji. ma ne bicarbonate quand même baax na. di ko di ko def genre kii en ah, tuuti man de lu bëri laa ci naan. xam la lekk bëri yow gisoo ma. xam nga gisoo bëti ni mu demee. yow nag maa ngi soog a xam tey lu tax nga calme quoi. seetlu woo ma rek. d'habitude je suis très calme ce <laughs> waa waa sama jaf tuuti. da lekk cere jàmbur. kon dëkk nit ñi sama couleur bi. <laughs> couleur yi ko ah moom kii du moom. yàlla baax na léegi àggali sa salaat alfi te nga gaaw nag yow dañoo war a dem ci way yi. waaw dama bëggoon rek def benn parenthèse bu tuuti pap ci mange rien j'ai pas envie de manger moi parce que voilà je suis malade. la euh, bu malade yi lu ci pexe. Ah. da ngay jël pat baxal ko. ok bu fekkee ay li bu ci def dara da nga koy xorom rek. Ah. nga lekk ko noonu. pat bi kese noonu ma lekk ko noonu. sans sans ma def ci sama sama war a dafa baax pas gras. ah gis nga boo amee jàngoro yooyu noonu may bañ a wax. waaw da a éviter lekk lu niin. ah il faut nga lekk luy fàtt ay féculents ak ay pomme de terre yu amul dara yooyu moom <laughs> dina servir de kii. <laughs> d'accord bon en attendant sa salade piémontoise on en profite juste euh, ki nga xamante ni moo di euh, Ndeye Mbëgge Ba voilà Ndeye Mbëgge on lui souhaite un bon anniversaire di ko ñaanal jàmm voilà c'est notre meilleur ami à parce que fii dañuy xëccoo ay meilleurs amis on t'embrasse très fort il est 10 h ñu ngi Euh, Adja Kumba Diop moom tamit euh, sama yaay la maamu maam Sala ma nga dëkk bu ñu naan euh, Paris àndandoo ak ñun ci bëccëg bi Nabou Camara moom tamit fàttewuñu ko Adja Kumba Diop mu ngi foofu ca France ñu ngi koy ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média pour coup de yi bu leen fàtte balaa ñu ciy dem ñu jël leen ci téléphone bi wala ñu dem ci léegi nii on va on va faire un petit voyage comme ni nga ñu ko diggee woon ce matin bijou tey fu ñu njëkkee ci coup ak sa xarit. c'est mon poteau. maître ji il n'habite pas et puis lunette am yu bees yi maa ko et puis fecc bi euh, fecc bi boo seetloo générique bi man bi ma koy fecc générique bu ah, man lu ko e maa ko ko jàngal. il a regardé yeewu leen il s'est dit ben écoute dafay génne fecc bu bees. et en plus vous vous habillez un peu pareil. voilà super bien sapé. c'est les meilleurs amis du monde. voilà sapé comme jamais <laughs> donc euh, benn ci single bi maître James génne actuellement mun nañu wax que depuis bi mu génnee section d'assaut ba léegi tout ce qu'il touche se transforme en or. Ah oui. chaque fois ses albums font des cartons actuellement ñaari album la génne pilule rouge pour ñi koy jiiñ ne euh, rabatul rap pur et dur la fa def ak pilule bleue pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp musique pop bi muy def actuellement et les deux déglu naa leen c'est juste de la bombe d'ailleurs disque de platine la nekk ñaar yooyu yëpp et sapé comme benn hôte boo xamante ne dafay rendre hommage xam nga sapologue yi waaw les euh, sapeurs congolais ouais. les congolais ñoom dégg naa société des ambianceurs et des personnes élégantes la ñu tuddee seen bopp. ñoom sapologie la ñuy dund c'est la sapologie. ñoom daal dina jàng mën a sañse rek mais koy dund c'est la sapologie. dañ koy dund ñoom seen suba ba ngoon ci loolu la ah ñuy dox. Ah couleur marque lépp la ñuy bokk. voilà je vois que beaucoup de beaucoup de gens se mettent euh, en mode sapé comme jamais mm. ak euh, Snapchat bi voilà coucou Snap sapé comme jamais. <laughs> nee na haut les mains sauf les mecs habillés en bas sapés en balmain. ah oui il a beaucoup de talent. beaucoup de talent mm. d' ailleurs album bi soo koy déglu doo xam sa ban titre moo ci daal. c' est juste ah, exceptionnel. ok te je pense que yeneen dina génnaat en clip. Snapchat akan. Tanzanie Diamond euh, Platnumz j' espère que turam bi nii lañ koy waxee meilleur artiste africain ci MTV EMAs euh, e mooy MTV bi nga xamante ne dañuy jël meilleur artiste africain yi moom moo ko gagné actuellement et en compétition il y avait Davido Yemi Alade. c' était Arafat Azaka a c'était hier à Milan mm. lañ leen doon donc euh, loolu moo tax tey ñu coup de cœur. mais je pensais que tu étais là-bas. mais je t'ai cherché partout. mais je t'ai vu l'intérieur de Milan là dans les compétitions tu m'as ah. trop de monde c'est pour ça. bon après tu es revenu ce matin très tôt. voilà donc dama bëggoon ñu. donc moom c'est l'un des seuls rares artistes africains yu ñu ci boole déjà. sur déjà honneur. mais mu am ci dara quand même c'est quelque euh, xamante ne moom la war dem concourir. Ah. Afrique ak Inde la ñu boole actuellement donc loolu mooy prochaine étape bi. mais mënoon nañu ci boole ay Carlou-D ay Kumba Gawlo. parce que ñoom ils s'imposent. si ils s'imposent mais xam nga a bëri. te chante en anglais et en swahili. donc du coup Nigéria boo koy la. à un moment donné alors que c'est pas ça. a dem mais Carlou-D euh, il a pas gagné mais waa Afrimama dañu teg ne c'est l'un des meilleures performances yi ñu ah gisoon. Ah donc il a cartonné ñu représenté non dina ñëw. incha allah dina ñëw en attendant coup de cœur euh, Diamond euh, Platnum. merci diminuer le son pour euh, <laughs> pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo xamul musique gu Tanzanie donc loolu euh, mu ngi jógee Tanzanie euh, comme quoi voyage bi daf ñuy permettre souvent ñu découvrir des artistes qu'on ne connaît pas mais qui font des tabacs extra sur le continent donc Tanzanie et puis waa ji dafa xaw a nuroog man maa ko jàngal d'ailleurs way même si xaw ma ko parce que dafay inspiré wu ci <laughs> ci gis nga tam xarit ak fër yi lay def. day day tax xel mi dem. <laughs> ngeen yaa jàngal waa ji woy bon il a beaucoup de talent. il a beaucoup de talent li nga nar a toog yëpp yaa ngi koy lekk bàyyi lekk tuuti. non mais franchement arrêtez quoi. ouais vas-y après ko ça ne se fait point. après Tanzanie on part où Sénégal ak euh, benn groupe boo xamante ne ils sont jeunes ils sont talentueux ils ont sorti leur album euh, ci show of the year bi passé. Mm. le 17 donc album bi nar a cartonné parce que single yi ñu génnee yëpp dafay dafay def buzz clip yi ñu génnee yëpp dafay def buzz seen flow d'habitude duñ ñuy euh, yi ñuy débattre sujet yoo xamante ne la ñi fi nekk ci nouvelle génération bi yëpp dañ ciy gis seen bopp Akhlou Brick euh, donc album bi Raise la tudd génn na la 17 xam naa du ñax ñu invité leen si plateau bi mais actuellement dañuy dem seetaan seen benn clip bu tudd xale xaalis. Akhlou Brick Paradise avant ñu ciy wax y a un truc que j'aime beaucoup tu sais bu ma nekkee booy may bëgg a nekk euh, télé su ma doon seetaan su ma doon dem ci télé yi ma gis nit yi bu dee def émission comme Mariam Samba ça c'est un truc boo xamante ni ça m'a beaucoup marqué buy wax donc depuis que je suis animateur euh, affaire bi su ma ko defee rek damay jàpp ni euh, animateur yu mag yooyu la quoi naan leen nii su ma ko defee rek ça que man la ñu war a wane dañu war a dagg clip bi quoi tout ça vous fait pas rigoler ok d' y a des jours il y a des jours comme ça à chaque fois que je fais sa je pense à à mes su ma toogoon ma koy seetaan bu bëggee wax pour ñu wane ko elle faisait comme ça. donc euh, moi je suis dans dama la doon seetaan ma naan waaw man xale bi nu mu def man dew ma <laughs> c'est la ma posé tout le temps bu may seetaan donc bon après quelques années après moi quand je te voyais sur 3A Télé Sud je me disais mais pourquoi sénégalaise bi toog ci plateau tubaab bi ah <laughs> juste dire que vidéo bi euh, euh presse ah pourtant ñoo ko produire ah. c'est des c'est dit ils ont beaucoup de talent Pape ah, tout le temps boo déggee seen son même booleen leen xamul da naan ñii ñan la. Euh, man première fois ma déglu sama choice. Mm-hmm. Euh, dama toog ma ne waa ñii nii ñan lañ et tout ñu naan ma Akhlou Brick Paradise je savais pas qui c'était musuma leen woon gis et pourtant daf ma marqué woon jusqu'à présent nga commencé gis seen ay clip. gis seen ay album yuy génn comme quoi y a léegi man ma ñëw ci sama coup de ni maa la dàq coup de cœur man na coup de cœur bi may ñëw affaire bi exclusivité la quand même exclusivité ah ay ta ñu teg sama coup de cœur want to find files that have these words in the name you can click see it Eh, li dafa dafa rafet ah gis nga coppite bi temps yi moo xewoon et puis ñoom bu ñu defaan bu ñu euh, génnewaan clip dafay xew ah yi ñuy sol da ngay gis ni ci dañ koy xewal e tout ça. ma grande sœur. bété bété non mooy létt wala maxane bi dafa daan daan xew dafa daan xew. seetloo ba ci yi. oui de posé yi <laughs> maire yi di def. oui toujours oui mais après jamono bu nekk ak la ak ak lay xew <laughs> après bu fekkee du jamono boo fekkee danga naan dafa kitsch mais ñoom ni mu doon xewee ci jamono boobu noonu la preuve daan photo mu ne ma sa doom dina la ree man ko mënul nekk non oh, man loolu moo nekkoon sama coup de ci nuyu maman Ndeye Amilo yaayu Vitu euh, moom tamit euh, nit ku baax la Daaro Mbaye woyoon na ko ci album bii nii on se le rappelle enfin pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fekkee euh, loolu yëpp ay ay xeetu souvenir la pour sama genre gi voilà tey ji suba damaa seen Kabou Gueye romb moom tamit moo daan bindal artistes yi ay way textes yi paroles yi ñoom Youssou Ndour ñoom Kiné Lam ak artistes yu mag yi ah moom Kabougué oui il est passé par là eh tout à l'heure je l'ai vu euh, je l'ai vu dans nos locaux moom euh, Kabougué gis naa fi Tina Turner euh, ñu ngi ko doon laajte keroog gis naa ko fi ana Tina ah est-ce que ma ko wool Tina Tina Turner lu muy def Sénégal Tina mu ngi fi dafa dugg oh là là bëggoon ñu gis ko comme ça gars yi xam ne Tina Turner mu ngi fi mais buñ ma ko mënee buñ ma ko mënee woowal Madonna ngi di jàll ana Madonna moom ayo ah, Madonna ngi <laughs> eh, Madonna Madonna Madonna Madonna <laughs> Madonna <laughs> Madonna ak bëri histoire du may xeelu Madonna Mado <laughs> Madonna ngi fi télé bi tey Madonna ñëw na Tina Turner ñëw na mm-hmm. ñoom ñëpp ñoom ñëpp ngi fi euh, di gërëm tamit euh, Niga Dia Niga Dia tey euh, comme on dit moo jaar ci style bi Niga ko que nous moom c'est un artiste ah qui a qui a qui a qui a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de talent mais ay tëneem boo ko solee da ngay da ngay gis différence bi nga am entre yow ak ñeneen ñi voilà ñu koy pirater ñu bàyyi ko mais bu buñ ko bàyyiwul. même buñ ko même buñ ko waaw même buñ ko original parce que tamit. gars yi ku fi ku fi def lu baax nag ñëpp toppandoo la. waaw ku fi def lu baax voilà voilà ku fi def lu baax ñëpp toppandoo la donc Ndiga Dia j'en profite juste euh, pour vous donner peut-être son numéro de téléphone si je l'ai si je l'ai pas. Euh, peut-être que demain euh, je vous le donne pour yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg tenue bi tenue bi parce que stock bi mu amoon bi dafa jeex mu ngi ñëw ci yeneen donc les quelques tenues qui restent il y a plein disent que c'est très beau. voilà numéro. Euh, voilà donne le numéro de téléphone. 77 77. jël leen seen stylo 418. 418. 14 14. pour ñu bëgg style bi nga xamante ni moom la defar donc moom Ndiga Dia on le remercie ñu ñëw jeexal ak suñu salade alvi salade bi pare na pare gis nga xam nga ni mu gaawee. donc pomme de terre bi cornichon bi ak euh, mayonnaise bi ak bi la mélangé tomate bi ak euh, nen bi ma éviter ko parce que jambaajo bi kon ba pare ba pare compliqué wul je vais goûter. bi la du ma la sonal ngay ñëw ba fële. Hmm? bàyyi ma dugg ci sa roq bi. aywa sa fii dafa xat de. fii nga bëgg wala fii ci biir. Ah, ah. fii dafa xat de ñu bokk siis bi. aywa ñu noos a ah? waaw nañ noos. voilà. bisu bul ñëw de. bañ a ñëw dañuy noos ana ana ana yaay pare na. yaay. yaay. Allô mon fils. Allez, on retrouve Yaay tout de suite. Bonjour bonjour maman. maa dañuy noos. da ngay ba <laughs> xanaa colonel. ma dañuy dañuy dañuy noos ma. lii lan la ngeen di tubaab la wala la. maa lii kii la maa lii <laughs> ngeen di xam nga jëkk ngeen di péruvien la. xam nga jëkkër ji waa Pérou la. ah boo jëkkër ji waa Pérou la. Ah, a dama ne la. non non jëkkër ji waa Pérou la. yéen bàyyi leen ma waaye. yaa gisoo ne jëkkër ji gàtte. li ma ci xam dafa bëri. mi ngi njool maman li plus muy lekk ceebu jën plus muy njool. waa léegi tey alfi bi mu togg ban la bàyyi seet. ma bii mooy salade. pronom pronom pronom piemontoise piemontaise piemontaise salade piemontaise waaw. Ah. maman maa ngi lay andi sa wàll. toog leen foofu te bu leen jaar ci kanamu caméra yi toog leen parce que léegi. Ah. colonel moo jaaroon ci kanamu caméra bi. maa kuy colonel. waa Baye Cheikh. dégguma la bu baax. maa maa ngi lay dégg ma. ba pare. waaw eh, eh, eh, ku nekk nii du sama doom bi absenté woon taay. waa gis nga ko de. <laughs> xanaa jëkkër ji dafa ñibbi. dañu koo dóor 35 0 waa ji da koo dóor daw. ah ah jëkkër daw na jëkkër ñibbi na daw. xam nga waa ji lu mu ko def. ah da koo njoos. njoos pare <laughs> bi ko defee njoos. lu tax bisu dafa ko njoket. Eh, bisu kay amuloon taawu fayu. taaw amul taawu fayu mama. <laughs> waaw ma ma est-ce que xam nga ni week-end warul am parce que jeudi ba lundi dafa gudd. ji waaye waaye heureusement ndaanaan di am par samedi. oui mais man ndaanaan bu amee yow di ma gis mais maa yow tamit da nga dañu war a def caméra sa kër au moins de temps en temps may bës bouton di la gis ma. waaw xalaatoo ni nekk dañu war a wax njëkk ñu defal ma caméra sama kër. oui ma il le faut quand même. comme ça soo defee ndaanaan ñuy gisante. oui mais mais sauf vendredi parce que vendredi ma. waaw ma vendredi da ngay fas sa kanam. waaw vendredi da ngay yendoo wedd tu ne parles à personne. ah yow li ma xamal bëri na de <laughs> ay seex dugg nga mën a sibiru <laughs> yow jub yokkal ma Baye Cheikh Baye Cheikh dugg nga ma nekk barke barke Serigne ma maa du wax ak kenn vendredi non non non non Baye Cheikh donc il faut il faut que vendredi bañ ci bokk parce que ah. vendredi taloo kenn yàlla rek <laughs> maa yàlla rek àjjuma yi yàlla rek Baye Cheikh <laughs> ah. dëgg dëgg xaw ma danga ma enquête xaw ma danga yor ay caméra xaw ma nu mu <laughs> waaye daal dugg nga ma ni sibiru ni xale yi mais ma et ma et ma en plus c'est normal je suis man maay sa taaw tamit. waaw waaw waaye nag kay wax la. waaw kii bay seex ñii ñii kaas bitim réew ak ci réew bi bëri na pour nga xajal leen. maa xam nga ñooñu lu leen dal. Hmm. iñaan ak bëgg a bokk. ah am na ku ci tudd Ngone Jàbba. Jàbba. Ngone Jàbba. mbaa riis na rek. ah yow tamit xoolal tur bi rek kooku. li ngeen ah ma ma bu fekkee riis na. waaw. bu fekkee riis na. waaw parce que temps yi maa ngi encaissé xale yi. waaw xam nga petit sax dama koo bàyyi woon. waaw loolu waaye keroog keroog pour ñu jox na ma junni. waaw léegi nee naa ko au moins yow di nga am euh, voilà voisin. waaw mais yow xam nga programme kon yow wax leen ñu yegg nga wax leen entrée ñaata. bon ça dépend maintenant ci nit bi lu muy liggéey. Adja Gueye nee na day fay. Adja Gueye ne ko écoute dinaa ko defal. Euh, voilà et puis damay damay ci ci décembre bii di ñëw. Ah. damay def solde. waaw mooy mooy mooy 10 pour cent. Ah. pour ñi nga xamante ni ñoo bëgg a bokk ak man place place doom bi. waaw parce que bëgg nañu Ngoné Diaba nee na day fay. Ngoné Diaba waaw. Soña Fatima Soña nee na day fay. waaw nee naa la Soña dafa dotom ah oui soo ñaata abul yaa góor loolu ko yàlla nga xam nga nag suñu suñu poteau suñu poteau bi yi. Ah, te dafa nga te yaa xool suñu pour moom pour moom moom muy déggee ci mer de. pour moom moom muy déggee ci mer gis nga temps yi mu nekkee euh, canal plus info xaw ma. waaw waaw télé boobu tey. waaw asalaamaaleykum suñu mbokku suñu mbokk yi di nuyu di nuyu ci hôpitaux yi ba ne ko yow déggee ci mer mu ndox. yow yaa yu bébé la def ko ndànk madame Lo nee na day fay. Ah? bon ne ko moom mun na fay. waaw Fatima Lo dégg chimère. Fatima Lo dafay fay dafay bëri na de ay sukkay na muut man dama njaboot de. léegi damay génne grille tarifaire. waaw comme à partir du mois de décembre damay def solde. waaw léegi damay génne grille bi dès lundi prochain. ba màggal gi paase. voilà su màggal gi paase. waaw déet maa paasu màggal yi nag. Ah. il faut que ñu jox ma paasu màggal bi. ah Aminata Tall ma ne jur nag looy wax moom. Aminata Tall de kenn gënu ko. neex a fekk loolu. barki de ak a wax la nag ma. Ah. moom defe naa il faut ñu jox ko place sax. Ah, waaw moom dama koy jox place sax. mais à condition. Hmm. mu réagir balaa suba. Ah. balaa suba léegi parfumeur. Ah. parfumeur Ablaye Pen Pen. Hmm. ne ko léegi léegi deleem jeex. parce que amoon na place su place su place su place su ma bokkal ndey. pour pour pour une semaine waaw ma defoon foofu par 15 jours. maa yow tamit bul wax. <laughs>

<laughs> waaw ma. Backe léegi maa ngi lay bàyyi nga ah, ah, nga ndékki sa ndékku péruvien. mais ma mais ma wax ñu lan ngay développé léegi nii bu. waaw dañuy nekk rek wax sénégalais euh, sénégalais yi. ñoom la laaj euh, lan la xaar ci seen justice su réew ndax gis nañ ci seen bopp. Mm-hmm. waaw je pense que loolu am na solo parce que souvent nit yi dañuy am ay problème duñu xam naka lañu koy gérer. ak justice euh, yenn saa yi yenn saa yu bëri du ñu ko comprendre. voilà et pourtant lu ñu war a comprendre. voilà lu ñu bëgg daal mu defaru. ak lu ñu bëgg ñu wàññi kii. xam na ndax gis nañ ci seen bopp daal. d' accord loolu daal lu yaatu la bàyyi see. ana maître Diop. Euh, kan ci maître yi. maître maître Ndoye ak maître Diop Madonna. waa uyu ma. <laughs> tey ñan nga tuddee Madonna ak kii. Tina Turner. xanaa gisoo xanaa gisoo gisoo keps ca xanaa gisoo keps. <laughs> Tina gisoo keps xanaa yaay. <laughs> ak Whitney Houston dégg naa tamit da ko dekki. waaye ki nga toogal noonu Madonna moom gisoo ko Maître Diop. ah yow kaay wax la gis nga mami. Ah. boo jiw am na jot mën na xeex. wallaay te mën na wàcc escalier yi. <laughs> Ah, te ba pare mën na wàcc escalier yi. am na jot na léegi léegi maa comme wax ji bëggatuloo mu bëri. mami nee na mi ngiy ñëw mami nee na mi ngi ñëw. kon kon maa adama. mami <laughs> ma mami demal. maa adama. mami demal defanteeg moom. adama ma au revoir au revoir ma. <laughs>